préfet euh, teew fi léegi am benn CLD boo xam ne taxawal ngeen ko pour euh, préparer ziara bi nga xam ne waa Safinatoul Saada te ñoo koy amal ca Scat Urbam les onze douze ak treize novembre est que mun nga ñu wax un peu solos bis bi ak li nga xam ne jot na génn ci CLD jërëjëf donc ñu ngi lay gërëm di la sant tey ñu ngi teewoon fii ci organisation CLD bi nga xamante ne comme ni nga ko waxee daayira Safinatul euh, Saaliki moo koy organiser muy journée euh, fraternité musulmane donc ñu war ko amal les 11 12 et 13 novembre ci Scat Urbam donc muy bés bu rëy ba nga xamante ne ah euh, Thierno Imam Ban moo ko woote te mu faraloon di ko woote ay at yu bari ci ginnaaw. donc ñu tuddane def également ay CLD yalla dogal nak ñaari at yi eh, passé amul ndax febar bi nga xamné mom moy coronavirus ran nak ñu war ko fédali té mu nekk bëss bu mag bo xamné ne bëssu l'islam la bëssu diiné la donc rawati na len bi nga xamantene eh, dañuy jaglel en eh, tout cas pareil bi Tierno Bachir Tall bi nga xamantene mom moy Khalif General Fami Omarien donc muy benen mandarga également ci bëss bi donc tay dajalé nañ fi service état yi donc tay ñom ñep jël nañ fi ay engagement pour gëna yembal bëss bi gëna taxaw également pour que bu bëss ba euh, euh, li nga xamanteni sentu nañ ko ci ci taxaway ci service état yi ñu mën ci euh, addu en tout cas gor gor na ci baaxa baax ba pèlerin yi talibé yi nga xamanteni ñu joggé gox bu ne ñew ñu mën fa nek ñu amal bëss bi ci anam yi nga xamanteni moy anam yi gën donc loolu nag pour mu am euh, euh, yéen ñi nga xamante ne ñoom ñooy comité d'organisation bi taxaw nañ fi indi également ay euh, préoccupations mu jëm ci wàllu sécurité jëm ci wàllu santé jëm ci wàllu également assainissement ak hygiène jëm ci wàllu également li nga xamante moom mooy éclairage ak yu mel noonu donc service yëpp kenn ku ci ne àndu nga ci donc te gis naa ne point bi nga xamante ne moom mooy en tout cas bokk na ci yi gën a am solo mooy wàllu euh, assainissement bi ñu gis ne euh, ci zone bi dafa am regard boo xam ne dafay couler foofu loolu comme ni ñu ko waxee ci euh, réunion bi bu soobee yàlla danañ si taxaw ak waa ONAS pour que vraiment ñu jël si ay matuwaay donc matuwaay yooyu nag dafay laaj bu bës baax aussi ñu mën see taxaw pour que ñi fay ñëw ñu mën faa ñëw en tout cas ci conditions yi nga xamante ne moom moo yi gën. ndax dañuy gis ne foofu dafa am regard bu fay couler te ni mu fay couler dafa xaw a jéggi dayoo te loolu nag dafay gêner population yi.